بمثلك لتعطى الأجسام نبي يا رسول الله septième édition anniversaire am di Moustapha Diémé ele kuréel xeelu euh, Doro Xëlu dimanche 14 mai 2023 ba 18h jotee fii ci Grand Théâtre bu Dakar muy doon ci ndigalu Cheikh Mountakha Bachir Mbacké xalif général euh, des Mourides Serigne Amdi Modou Mbenda Fall xalif général euh, des Baye Fall Serigne Assane Mati Soxna Khady Fall ñu fas yéene fa rendre hommage Serigne Mama Samba Modou Moustapha Baye Aziz Modou Moustapha ñii ñooy parrain yi Monsieur Abdoulaye Diop euh, maire bu Guinaw Rail Sud euh, député à l'Assemblée nationale Monsieur Issakha Diop euh, maire bu pikin Est Monsieur Modou Gueye bu Djiddah Thiaroye Kao Monsieur Papa Ndiaye responsable politique Monsieur Ibrahima Diop maire bu Karang Monsieur Mohamed Amar Monsieur Bambi Diagne transitaire Serigne Khadim Ndiaye Monsieur Abdou Salam Mbaye responsable politique Docteur Cheikh Dieng Fépp Tawfekh Iboulaye Diagne Mamadou Niang 1 Maam Lay Ginaaw Raay Baye Serigne Ndiaye Mansali bu bees Cheikh Ndiaye Bijoutier Balla Fall Naaru Maam Lamp Serigne Mohamed Fall Serigne Lamine Fall Serigne Khadim Kamal Ismaïla Gueye Bati Sarr Cheikh Ibrahima Diouf kuréel Serigne Abdou Karim Mbacké Ginaaw Raay kuréel Serigne Idali Mbacké association des tradipraticiens yu Ginaaw Raay Cheikh Madegen Serigne Mbacké Bousso Baye Fall Abo Cheikh Thiaré Mbaye Amdi café Baye Fall mu kabaro Serigne Modou Aminta Ndiaye ginnaaw biñ ko defee ginnaaw raay jàll cinéma awa yóbbu ko Sorano ren septième édition ñu yóbbu ko Grand Théâtre bu Dakar bu ko kenn wuute programme 100 pour cent Baye Fall lay doon marraine Soukay Ndoye soxna Fatou Sène soxna Astou Fall Mami Diallo Aji Diallo Assom Diémé Richard Toll Aji Baax Yaay Idiya Thiam Mami Kabaro soxna Anta Ndiaye Maam Jaara Diène Fama Ngom soxna Ami Fall Mabili Touré soxna Marème ay Aysatu Diallo Maam Jaara Dieng Naar Fall soxna Gaye Mati Yacine Yacine Dieng Fatou Gueye Astou Mbacké Médina Rue 1 Ndey Samb Fatou Socé soxna Titi Malika soxna Awa Diop Malika faatu Diop Mami fay Kiné Seye soxna Ndey Mbour soxna nday Fatou Diop Mbour soxna Ndey An Mbour Maguette Seck Fadia Diarra Khady Diop Mami Ndiaye Badiène Maam Ami Ndiaye Soxna bu ndaw Ngone Ña Yaay Soxna Fall Soxna Fatim John Soxna Mati Kane Soxna Kuri Fall Soxna Fall mu Sëriñ Amdi Moodu Mbenda Fall Marema Kunta Marem Ngaaj Nabu Diop Aysata Data Penda Dieng kon programme baa ngi noonu septième édition anniversaire Amdi Moustapha Diémé ak kuréel xelu a Xëlu dimanche 14 bu 18 jotee fii ci Grand Théâtre bu Dakar entrée